aywa gëstu bës bi wala document bi Chérif du sax nit aywa ñu wax nag ki euh, njabootuk amadu Ndiaye xam ngeen ne euh, ñeenti weer dafa dafa doy waar ñeenti weer ci ginnaaw Aïssatou ci stade Ngalandou juuf am na lu tiis lu fa xewoon euh, ci match nawetaan la woon ba Amadou Ndiaye ñàkk ci bakkanam njabootam nag dañ leen a dem seeti équipe bu Infos ñu wax ñoom nag fi mu ne nii dañoo boole sëngeem ak xol bu ceex ndax mbir mi dañoo gis ne am na càggante am na yéexi ay yeex yoo xamante ne si daal bu ju sañoon ñu gën cee farlu ko defee ñu xam euh, anakat moo faat seen doom ak yenn anam Abdou Diouf Diagne ak euh, Bamba Samb toggal ñu foofee ci diwaanu Tëngéej ñoo dem seeti njaboot gi ñu seetaan ko dellu siwaat léegi léegi. Mamadou Ndiaye na maa ko yor muy xale tuuti ba ma xëy maye ko ci bàjjanam la nekkoon. ki ki bokk ak papaam ndey moo ko yor bëgg ko lool gënu ci sax yàlla ndax xale bi wax dëgg yàlla yàlla sax a dogal deem bi bàjjenam bañoon na ko ba da ko dem wutal aboneel pour muy seetaan match yi ci euh, canal bi. ah lu may wax kilifa yi xanaa rek ñu góor gu jàpp si rek bàyyi seetaan bi parce que xale toll si digg ndawam jaboot la. kii jaboot la xale la muy taawam bés boobu wax naa ak yaayam ci suba gi wax naa ak yaayam ñëw na ko si yaayam ka euh, kayitu juddoom mu de jëli ji ko extrait de naissance ko jëli ji yaayam a ko gunge ba sa euh, taliba ba tey dégguma si dara ba léegi dëgg yàlla dëgg dëj bi ba léegi déggaatuma si dara dara waaw waaw si yaayoon ah dégguma si dara wax dëgg yàlla dégguma si dara maa ngi toog leen déglu waaye dégguma si dara dara ba tey. ah dañ toog rek xam nga rek ñoom xam na lu mu war a dem parce que xale la ndaw la tamit xëy na yàlla ko tuddee woon nii te mën ci dara waaye xale la daa parce que bu ñu xalaatoon ne bu demoon foofu loolu dina am xëy na du dem waaye xëy foofu la ko yàlla tuddee waaye ndaw la daal te sama taaw. ah waaw bu fekkee mën na ko tamit ñu jàppale ñu rek mu def liggéeyam rek bu dee mën na ko waaw. mën na naka daal ñu toog rek di xool ñëpp xam nañ rek du bët àttam. dé dégguma ko de wax dëgg yàlla dégguma ko gisuma ko nag dégguma ko gisuma ko waaw man sa yor ma ko bàjjana ma ko yar bàjjana ma ko yar fii tëngee jokku ñoom dañu toog rek ñoom tamit déglu bàjjana mi ne mënatu la wax sax si bëgg média yi mënatu si wax dara parce que da koy jooy ba tey. tey dañ ko doon wàccee kaamil fi ci kër gi rek ay moromam yu nekkaloon daa ay xale lañ ñoo toog rek seen xel dem te nañ ko wàccee kaamil waaw. waaw waaw ah, loolu lañ bëgg xaw ma nag lañ bëgg xaw ma parce que taaw dafa jafe daal doom ci su doom di góor xamoo woon ëllëg lan lay jariñ ëllëg. ba suñu borom jéggal metti na metti waaye suñu borom bu soxlaa dañ koy bàyyee moom rek parce que mënu ci dara xëy na woon a dunda mënoon na yem waaye sote nañ tra ba léegi dama koy jooy ba léegi waaw ndàmpaay li soxla nañ ko lool ndax dañoo néew doole dëgg yàlla soxla nañ ko nag ñu ngi sant yàlla nag bu baax ñu ngi sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla waaye bu ñu ko amoon it jël ko amoon itam jël waaw. lan nga ah loolu ma bëgg a wax xam na rek lii yàllaa ko dogal ndax yàlla boo euh, jaam bu soxlaa yàlla soxla ah nga xam na rek yàllaay jël yaay muñ yow jaam bi yaay muñ waaye nag metti na lool metti na mu metti lool nag metti na lool nag waaye nag ab julli la lépp di dal julli moom la lépp di dal yàlla may na xolub ñu rek waaye daal te lu yàlla metti na daal metti na aywa muy tiis bu metti boo xam ne moom moo dal ci njabootu njaay euh, Malick Kandoum euh, seen doom ca stade ba euh, Ngalandou Diouf bu Tëngéej ci lañ ko faate woon ci nag match muy nawetaan loo xam ne nag ba léegi daal dafa mel ni l'enquête auto est au point mort. waaw xam nga bi suñu reporter bi di dem foofu si kër gi kiy wax nii. Mhm. moo jur suma jabar ci biiram. donc sama goro la maire Rama. moo yar Fatou Mbacké ba mu màgg ñu may ko jëkkër mu dem donc euh, suma sama doom ak ay moroomam samedi bi la ñu toog ni dañuy dem wàcceel kaamil xale bii di bàyyi ndoy pour ñaanal ko donc samedi bi ñoom ñëpp ñu ngi woon Tëngéej pour wàcceel ko kaamil ay moroomam ñoom ñoo mm. jël initiative bi ci seen groupe whatsapp ni nañ dem ñu ñaanal suñu moroom bi fi jógee mm-hmm. donc ci ñaan googu xëy na la pro euh, le reporter bi profito pour dem def le point ci li xewoon mm-hmm. xale bi ñàkk na bakkanam mais mu wayul tuur na mais mm-hmm. ba léegi à part les déclarations d'intention yi amoon ci émotion boobu. Mhm. amul dara lu nga xam ne mujj na ci tout au contraire enquête bi sax dañu dem ba benn moment ñu bëgg a euh, maanaam daal ut ay charge yu ñu teg ci xale bi. Mhm. wala boog ci euh, ci li xew disculper ci. Euh, état disculpé ci police pour jéem a fexe ba dara du ci am. Mhm. donc moo tax sax boo xoolee ki ko yar. nanguwul wax euh, ki nga xam ne également mooy doomu ki ko yar ñoom ñi ko yoroon nanguwuñu wax. Mm-hmm. parce que l' enquête avait pris des tournures yu nga xam ne ils sont dégoûtés. Mm-hmm. par qui s' est mm-hmm. ba ci mbër bi nga xam ne mooy ama neex moom mu yan woon xale bi. pour dem sauver si ko sax police am na enquête bu mu def ci moom bu nga xam ni mooy loolu. mais bo l'un dans l'autre ñoom muñ la ñu ak waqiir lu ci yàlla mi mm-hmm. nga xam ne moom moo jàppoon ne xale bi foofu la bakkanam di yem mm-hmm. mais li ci war lépp ci jàppale njabootam mm-hmm. jàppale yaayam ji nga xam ne amul doole yaayam ak papaam nekk di sëy tàggoon nañu ba yaayam di sëy ak keneen donc situation bi ci am dafa xaw a doy waar ba nga xam ne fi mu nekk nii mun nañu wax ne ils ont perdu leur fils. très bien te mujjul fenn. très bien yal na yàlla yërëm ko xaare ko aljana mais non à l'impunité donc euh, moom mooy euh, li ñuy wax yal na àggale ndawam fiir daw si et puis fa mu féete woon njaboot yal na leen fa buur yàlla féete ñu dalal léegi léegi sunu invité.